ñu ngi am mbégte euh, dalal Alhassane Niang xelam màcc ci wàllu gouvernance publique ak réforme institutionnelle mu jiite itam parti jiital wareef ñu ngi lay dalal jàmm di la gërëm ci disponibilité bi Alhassane Niang bismillah ci matinal bi waaw salaamaaleykum euh, Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di euh, kontaan di nekk sa invité tey mm-hmm. di nuyu say euh, auditeurs ak internautes yi ak téléspectateurs yëpp mm-hmm. ñuy kontaan di nekk fii tey mën a échanger ci actualité bi jërëjëf alors ñuy waxtaan ak yow tey depuis Bruxelles wante actualité bi moo laaj ñu ñu ñu sàkku sa xalaat ci xew-xew yi rawatina li am Gabon di coup d'état gannaaw élection yoo xam ne ñu ngi ko organiser ci coow lu rëy ak li ci am yëpp coup bi am gannaaw yeneen yoo xam ne yàggul sax daanaka mu mel ni Afrique dafa dafa yëngu lool ban jàngat nga ci def. waaw li xew euh, Gabon euh, dafay nekk loo xamante ne duñ ko rafetlu ndax coup d'état nekk loo xam ne dafa gënal euh, réew rawatina réew yi nga xam ne ñi biir Afrique waaye bu ñu yemee ci lool rek mën nañu jum ci ni koy jàngatee. Hmm. ndax Gabon ñi ko doon ñi nekkoon ci bopp Gabon depuis mille neuf cent soixante sept da ngay xool depuis mille cent soixante quatre sax laay wax. Hmm. dangay xool benn famille bi la. donc boo xoolee daanaka depuis cinquante cinq ans maanaam juróom fukki at ak juróom nga xamante ne bépp gabonais boo xam ne am nga yow juróom fukki at ak juróom benn famille bi nga xam muy Omar Bongo Ondimba mu dem ba génn àdduna en 2009 doomam jël moom mu def 14 ans nga xamante ne constitution bi ñaari mandat la yemale moom ay mandat hmm. waaye mu jël constitution bi euh, euh, dugal ci ay poroxandoolu pour mën am ñetteeli mandat nga xamante ne bu jàlloon day def beneen mandat de sept ans muy nga jàpp ne ñun dañu nekk ci li ñuy woowee république te république dafa am nu mu tëddee dafa am nu muy doxee nga jàpp ne tam da nga nekk ci démocratie te démocratie dafa nu muy doxee. Mm. kon donte doo rafetlu li nga xamante ne moom mooy coup d'état waaye mënuloo tam ñaawlu li nga xamante ne tax na ñu dakkal li nga xamante ne ab dynastie lañ ko tuddee depuis euh, fukki at euh, depuis juróom fukki at juróom. donc moo tax ma jàpp ni coup d'état moom fu mu mën a am ci àdduna bi kenn waru ma kenn ko Euh, waru mën a waru ko mën a rafetlu waaye bu ñu gisee li a xamante ne moom moo xew Gabon je crois que dañuy jàpp ne Gabonais yi am nañu benn liberté boo xam ne wala benn libération boo xamante ne soxla woon nañ ko mm-hmm. donc sous ce rapport kon lañ koy dañ koy dañuy dañuy ànd ak ñoom ci Euh, libération bi nga xamante ne coup d'état bi indil na leen ko. Mhm. li wane ne libération lañ ko jàppee sax manifester nañu fu mel ni dakaar ak feneen di di di wane seen mbégte euh, ci daaneel boobu ñu daaneel Ali Bongo euh, mais am na benn taxaw seetlu aussi bu ñu def mooy réew yi am coup d'état yëpp boo xoolee ci biir askan wi dañuy ñaxtu te li ñuy ñaawlu mooy yorin bu bon est-ce que yorin bu bon. am na lu mu jote ak coup d'état est-ce que mun na yóbbu réew ci mu yegg ci ci ci coup waaw loolu euh, li nga wax noonu dama koy dëggal bu baax a baax a baax parce que dafa am benn euh, wax bi ñuy wax naan euh, askan. Hmm. dafa nekk ab ni ñu koy waxee ci olof gis nga ku ñu téye. Hmm. ci yoon askan dafa mel ni ku ñu téye ci yoon. Hmm. waaye yoon boobu ñu ko téye day mujj finalement. jóge ci yoon boobu nga xamante ne ci ci ci la nekk pour mën a recouvrer li nga xam ne moom mooy souveraineté am mm-hmm. su ma ko doon faram-fàccee ci ci français mooy un peuple est un souverain captif maanaam buur bu ñu téye la mm-hmm. mais c'est un souverain captif qui recouvre toujours sa souveraineté mm-hmm. maanaam buur bu buur bu joxe boppam la ndax ñu téye ko takk ko waaye noon ñu ko téye ba takk ko day recouvrer toujours li nga xam ne moom mooy liberté loolu li muy firnde mooy gis nga euh, li nga xamante ne moom moo dal waa Gabon dal euh, ñi nga xamante ne tam ñoo nekk ci yeneen réew yi muy Burkina muy Niger muy Mali muy Guinée nga xamante ne réew yooyu dañoo bokk boo ci mën a jël. Mm. da gis ne dañoo bëri alal. Mm. Gabon tey boo xoolee li mu yor ci alal kenn xamul lu mu toll ci wàllu bois ci wàllu manganèse ci wàllu euh, euh, pétrole ma xamal la tamit ne manganèse tey dafa nekk benn ressource bu stratégique parce que. adduna bi comme dañu nekk di def benn transition maanaam dañu bëgg a jóge ci lépp li nga xamante ne essence moo koy doxal wala gaz wala essence moo koy doxal wala wala diesel maanaam li nga xam dafay dérivé ci pétrole comme dañu bëgg a jógee loolu dem ci li nga xamante ne ay énergie bu set la. Hmm. maanaam boo xamante ne jaww eh, ci jaww bi lay jógee wala ci naaj bi wala bu hmm. jógee ci. Euh, ressources yi nga xamante ne ay batterie lay defar nga xamante du du du indi benn CO2. Hmm. léegi nag dafa am ay ressources yoo xam ne ñoom dañ koy soxla pour mën a defar loolu te manga manganèse ci la bokk. ma lay xamal tamit ne euh, euh, Fatou. Hmm. dafa am benn euh, benn benn benn élément boo xamante ne dafa bokk ci manganèse ñu ngi koy tuddee scorie. Hmm. est-ce que xam nga ne tey. Hmm. boo jëlee scorie di ci bëgg a di ci bëgg a tabax benn yoon boo jëlee ay scorie di ko tabaxee par exemple autoroute. autoroute boo jël de façon classique ñu tabax ko. su nooree def trente ans bu nekkee da nga koy utiliser ak scorie dina def quatre vingt dix ans wala cent ans. Ah. mu nekk matière bu ama am solo. léegi boo jëlee réew mel ni bu mel ni Niger. li mu am ci uranium kenn xamul nu mu toll. ñi ñi ngi naan deuxième ñi ngi naan mooy troisième gisement au monde nga jël Guinée Guinée ñu ne la quatre vingt dix pour cent de la bauxite mi ngi ci biir réew Guinée. Hmm. te Guinée te xam nañu ne bauxite moom mooy tax nga defar alumine. alumine moom mooy tax nga yow nga mën a defar aluminium. Hmm. léegi nga jël dëkk bu mel ni Mali. Mali ñu ne la moom mooy premier pays producteur wala deuxième pays producteur euh, en Afrique d'or. Hmm. nga xamante ne depuis le temps du royaume de Kanka Moussa li réew mi amoon ci alal lépp fan lañ ko jëlee l'exploitation de l'or mm. nga jël Burkina exactement moom it li mu am ci or kenn xamul mu toll ak coton. Mm-hmm. mais léegi boo jëlee juróomi réew yooyu i benn benn mbir bi nga xamante ne dañ ko bokk mooy mooy ndóol. Mm. réew yooyu yëpp ñoo ëpp ñoo ëpp Sénégal euh, euh, possibilité. pourtant Sénégal moo raw euh, réew yooyu yëpp. kon loolu day firnde li nga doon wax sànq. Mm. par rapport ak la question de la gouvernance donc gis nga yorin boo yoree réew ci anam boo xam ne baaxul dafa am ay conséquences conséquences yooyu nag buy dem benn at ñaari at fukki at ñaar fukki at faaw askan bi fippu. Hmm. fippu nag bu askan bi fippu daf koy teg ci ñaari anam mën na ko jaarale ci militaires yi wala moom mu jaarale ko dans le cadre hmm. léegi nag li ñu gis mooy fippu askan bi ñu koy manifester dans le cadre des des des des militaires. Hmm. parce que ñoom dañoo dem ba xam ni. li réew mi di dund li askan bi di dund loolu mm-hmm. mënatul nekk parce que du mm-hmm. dëgg loolu moo tax léegi militaire nag jóg waxal askan bi mm-hmm. même bu nekk sax am na ñoo xamante ne dinañ ci dugal lenn li nga xamante ne peut-être dina ci bokk mais de façon euh, bi ni ñuy doxalee réew mi ressource alalu askan bi ni ñu koy doxalee mm. loolu moom moo yóbbee euh, ñu bëri coup d'état yi nga xam ne am nañ ko parce que boo jëlee le cas du Mali et du Burkina li tax coup d'état am parce que armée dafa boo dem di xeexi sax amuñu sax li ñuy jëfandikoo pour mën a xeexante les djihadistes exactement amuñu gànnaay. jihadistes mhm. yi di leen rey di leen di def askan wi yu doy waar. te boobu alalu réew bi kenn xamul fu koy def. absolu mhm. absolument yow boo demee ba sa sa militaire sa takk der yi sax mënoo leen jox ay gànnaay yi ñu mën a protéger sa mhm. réew. wax dëgg la askan bi donc euh, loolu ngay waxee ni ñuy téye askan bi ak ni ñuy doxalee euh, alalu askan bi muy gouvernance loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom moo indee Euh, lii lépp ndax euh, dans le cadre du Gabon boo jëlee réew boo xam ne cinquante cinq ans même famille moo koy gérer xam nga ne foofu gouvernance mënu fa am mm. parce que foofu nekkatul république foofu kay dañu waroon wax monarchie la rek mm. comme yenn réew yi ni ñu ko Afrique mm. ndax Afrique am nañu monarchie mais bu nekkee nga nekk ci république dafa am na muy doxee donc euh, question de gouvernance dafa nekk loo xamante c'est essentiel lu central la malheureusement euh, réew yi nga xamante ne ñoom ñoo basculé ñoom ñëpp ci coup d'état euh, gis nañ ni doxalin bi dafa sooxe woon sur ce point. Hmm. sa xel màcc ci gouvernance ak réforme institutionnelle euh, euh, souvent aussi ñuy dégg ne système de gouvernance bi moom ñëpp d'accord nañu ci ne dañ ko war a changer problème yi nga wax nii yemul ci juróomi réew yooyu daanaka réew yi Afrique yu bëri rawatina ak pays francophones yi même problème la ñu am alors tey buñ doon war a def ay coppite. Euh, yan coppite la ñu war a def et dans l'urgence pour au moins euh, ñu mucc ci yenn coup d'état yi parce que buy continuer ni ça veut dire que coup d'état yi aussi mun na continuer puisque y a un lien entre ñaari phénomènes yooyu loolu dëgg la gouvernance dafa bokk ci li nga xam ne dañ ko war a tëral ci doxalin boo gis parce que gouvernance ab principe la mm-hmm. maanaam da ko war a appliquer ci institution boo gis ci doxalin boo gis leneen li mooy il faut que li li ñuy wooyee euh, le Euh, d'opposabilité maanaam ak principe de redevabilité hmm. maanaam képp ku ñu dénk il faut nga xam ni yow bis boo demee ba pare li nga dénkoon il faut nga wax fan nga ko jaarale loolu tant que defuñu ko érigé ko mu nekk benn principe boo xamante ne exactement reddition des comptes c'est loolu loolu loolu dafa doon lu am solo reddition des comptes mooy maanaam yow da ngay doxal ba at mi jeex ñu ne la euh, ñëwal joxoon nañ la junni junni fan nga ko dugal hmm. loolu mais loolu pour nga mën ko doxal il faut nga am ay garde fou mm-hmm. waxuma ay OFNAC parce que OFNAC pour man yooyu ay caaxaan la donc il faut que ñu am ay yoo xamante ne dañuy jóg di liggéey di def li nga xamante ne moom mooy tax ñuy mën a sàmm li nga xam ne moom mooy àlalu askan bi mm-hmm. donc euh, te loolu boo ko bëggee def il faut nga opposer nit ki nga xamante ne moom nga jox ndomb tànk jox ko mu am li ñuy wooye pouvoir d'ordonnancement maanaam mën na engagé alalu réew mi ba ci ministres yi nga xamante ne donte ñoom dañuy engagé ay ay ay dépenses parce que ñoom dafa am fu ñu koy jaarale travers notamment les DAGE ñoom ministres yi li nga xamante ne jox nañ ko muy mën a signer parce que tey boo jëlee benn ministre des finances hmm. su bu bu signer par exemple benn benn décret permettant par exemple à telle ou telle entreprise mu am exonération par exemple sur dix milliards mais ñax nga mais xañ nga askan bi dix milliards hmm. te pourtant ministre boobu faluñu ko hmm. donc système yëpp ñu war a xoolaat équilibrer li nga xam ne moom mooy les pouvoirs faire en sorte que justice fu mu war a mën a liggéey ñu bàyyi ko mu liggéey liggéeyam def ay réformes dans ce sens mm. faire en sorte que également assemblée nationale à travers la commission des finances li mu war a mën a def nga xamante ne yoon da ko may doole bu ama am solo mm. waaye doole boobu kenn gisu ko toxaluñu ko constitution bi nga xamante ne ñun dañ ko am muy constitution bi nga xamante ne dañ ko jëlee ci France muy 1958 constitution boobu dafa dëppawul loolu je crois que wax nañ ko wax ko waxaat ko donc yooyu yëpp la ñu a toog xoolaat ko à travers maintenant des assises wala à travers des états généraux mm. gars yi toog xool mais ñun ban façon réew la ñu soxla ban façon modèle la ñu soxla sur le plan institutionnel ban façon modèle la ñu soxla sur le plan économique je crois que militaires yi nga xam ne ñoom ñoo jël nguur muy Gabon muy Burkina muy Mali muy Niger muy Guinée bu ñu toogee avec sincérité ci mm. la nañu xool yan transition la ñuy en place jël benn gouvernement boo xam ne d'union nationale lay doon pour que gouvernement bi réfléchir ci modèle de société bi nga xam ne soxla nañ ko et maintenant à partir de ce modèle de société ñu mettre en place institution maanaam bànqaas mm. yi nga xam ne ñoom ñooy téye réew mi bu ñu defee loolu dinañu am ay réew yoo xamante nit dootu ko téye waaye ay ay bànqaas a koy ndax réew du nit a koy doxal bànqaas a kon nit dootul amati sañ-sañ ñaw nara def ñaari mandat mu naan non finalement ñetti mandat lay def loolu dootul amati sañ-sañ parce que bànqaas yi ñu koy téye. Mhm. donc loolu daal bokk na ci li nga xamante ne moom mooy dëggal gouvernance et moom moy mën a éviter aussi ñu am ay coup d'état ci li nga xam ne moom mooy Afrique. Mhm. may may may may euh, feeñal foofu rek. Mhm. ne boo seetloo coup d'état yi gis ni yëpp amul benn coup d'état ci benn euh, pays anglophone. boo xoolee ci juróomi at yi. coup d'état yi ñu gis yëpp ci pays francophone yi loolu am na lu muy firnde oui ñoom ñoo ëpp problème de gouvernance peut-être ak problème institution alors est-ce que Sénégal war nañ koo tiital coup d'état parce que bi coow li euh, jibee ci yeneen réew yi euh, fii tamit am nañu commencé xalaat loolu di ragal est-ce que tey war nañu ragal coup d'état réellement ci ci suñu réew waaw euh, coup d'état moom daanaka mën na am fu ne ndax France ci boppam mosoon na am coup les États-Unis en 2020 Donald Trump bu ñu bu amuloon ay institution yu dëgër États-Unis ñoom bu ñu ko amuloon kon coup d'état dafay am parce que Donald Trump dafa naroon confisquer li nga xam ne moom mooy euh, victoire wu euh, li tax may wax loolu c'est pour wane ne coup d'état mën na am fu ne. Mm-hmm. mais euh, bu ñu xoolee dans le cas du Sénégal donte lu mën a am la mais gëm naa ni ni Sénégal tabaxee armem nga xamante ne loolu dañ koy santé Senghor nga xamante ne dafa teel a comprendre. bi ñuy am suñu indépendance boo xoolee am na réew yu bëri ñoo xamante ne ay militaires rek ko doon diriger ay ñoom Mobutu boo xoolee ay ñoom Bokassa euh, et cetera ñooñu ñëpp euh, ay ñoom euh, président Ouganda bi Imin Amin Dada ñoom ñëpp c'était des mm. ay militaires loo xamante ne amuñoon xam-xam parce que ñi ay caporal la ñu woon ñi ay caporal chef mm. et cetera wala ñi ay ay sergent mm. ñu jékki-jékki bombardé seen bopp jàpp ne ñoom ay généraux la ñu wala ay colonel wala ay wala ay maréchal jamono boobu nag Senghor moom yàlla defal na ko mu am xarañte boo xamante ne ak gis-gis boo xamante ne mooy armée soo bëggee mu nekk armée républicaine ñi koy jiite il faut ñu doon nit yu am xam-xam ci la ñu créé ENOA ak ENSOA école nationale des officiers actifs ak école nationale des sous-officiers actifs waaye jël aussi le yeneen yi yóbbu leen France ñi yóbbu leen États-Unis euh, West Point ak Saint-Cyr donc ñun dañoo am chance boo xamante ne suñu takk der yi dañu xam ne dañoo xam lan mooy réew. Mhm. dañoo xam lan mooy état dañoo xam lan mooy institution. Mhm. ndax militaire boo xam ne yow da nga jege institution yi wala da nga nekk presque ci buntu nguur gi. Mhm. boo defulee ndànk bu nekkee amul ànd àndaloog sa sago rek di nga def coup d'état mais ñun yàlla dimbali nañu ba Sénégal suñu militaires yi xam nañu lan mooy réew lan mooy institution moo tax donte ñëpp war nañu mën a tiit li xew waaye jàpp nañ ne dans le cadre du Sénégal moom euh, am nañu yaakaar ne loolu loolu du am parce que euh, takk der yi ñu yor ñoom vraiment ay républicain lañu te loolu dañ dañ ciy mhm. euh, temps bi may ñu ko woon sànq mais on a encore euh, deux ou trois minutes euh, mun nañu profité wax ci aussi taxawaayu CEDEAO parce que li ñu fi wax sànq muy coppite ci wàllu institution ak xoolaat gouvernance bi taxaw ci ni ñu ci war a taxawee loo xam ne la aussi CEDEAO am na rôle bu ci war a jouer anticiper mais dañuy bàyyi ba coup d'état am ñuy condamné alors que peut-être ay coup d'état institutionnel jiitu woon na mooy manipulation constitution yi pour toogaat yeneen mandat te duñ na rôle boo xam ne aussi CEDEAO war na ko mun a euh, jël ci euh, euh, coppite wala réforme yi nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi suggéré pour Afrique. dëgg la xam nga CEDEAO bu ñu koy créé dañ ko jox benn mandat maanaam liñ ko liñ ko liñ ko digal. Hmm. mooy mu boole askanu Afrique de l'Ouest boole leen ci wàllu doxalin ci wàllu koom-koom ci wàllu intégration maanaam ñu nekk benn waaye plus ñuy avancer ñu jox ko yeneen euh, euh, sañ-sañ ne ko léegi euh, dañu xoolal sax même bu nekkee jafe-jafe am na ci ci biir communauté bi ñu xool naka la ñuy mettre en place benn benn benn benn benn armée boo xamante ne ay takk der tuddee ko ECOMOG ñoom ñooy intervenir pour garantir la paix mais ñoom nag dañ leen ne pour garantir la paix mm. donc CEDEAO tey li ñuy xaar ci moom moom mooy mu nekk la CEDEAO des la mm. mais pas la CEDEAO des chefs d'État CEDEAO warul nekk benn club boo xamante ne. Hmm. chef d'état yi dañuy toog dajaloo naan léegi dañuy dem defi guerre pour sauver kenn ci ñun non. CEDEAO hmm. <laughs> li mu def mooy gànnaay yu mu war a jël daf ko war a jël di ko xeexee ndóol di ko xeexee lii tax Afrique jëm kanam ko xeexee li tax Afrique de mën a jëm kanam hmm. waaye malheureusement CEDEAO ba léegi xam nga mooy financé CEDEAO. Union européenne moo koy financé. France moo koy financé. Royaume-Uni moo koy financé Allemagne moo koy financé. après ñu bëgg a moom seen bopp USAID moo koy financé. <laughs> waaw mais léegi ñoom bu ñu lay financé ñoom ñoo lay wax fi ngay jëm. waaw waaw donc li nga xamante ne moo xewu Niger. heureusement ba tey chef d'état yi ñu ngi pousse pour intervention mën a am. Mm. waaye les chefs d'état-major maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy diriger armée yi. dañoo ne loolu du ci dootu loolu moom mooy li nga xam ne mooy chance bi dañoo ne intervention moom duñ ko nangu. Mm. finalement parce que ba ñu toogee ba nga xamante ne dara dul dara ñoom dañoo toog xool seen biir xawlante seen biir xam ne nii. Mm-hmm. chef d'état yi li ñu leen bëgg a def loolu mënul nekk. parce que yow nga nar a jël na ko fan yële. Mm-hmm. nee na CEDEAO bis bu attaqué Niger la guerre la plus idiote maanaam guerre boo xamante ne kenn xamul fu mu jëm. Mm-hmm. guerre dof lay doon. loolu amul sens. donc te peuple bi tamit muy nigérien waaye muy les peuples de la CEDEAO ñoom ñëpp jóg nañ taxaw lii du fi am parce que CEDEAO bu warul jóg ànd ak askan bi. Hmm. warul jóg naan day xeex contre le Niger moo tax actuellement euh, Mali ak Burkina. Hmm. voté nañu ay loi yoo xamante ne ay loi yi leen di autorisé. ñu yóbbu ay militaire ak ay hmm. ay gànnaay yu am am doole yu takku ci biir li nga xamante ne moom moo exactement ba pare Niger tamit voté na benn loi euh, pour mën a autoriser Mali ak Burkina ñu mën a indi seen i militaire ak seen i gànnaay kon léegi lan lañ bëgg def jël Mali Burkina ak Niger ñuy ñetti réew ñoom ñu xeex yeneen ñetti réew. Hmm. ñeenti réew. Afrique di xeex muy Sénégal muy Côte d'Ivoire muy Nigéria. Hmm. loolu xel mën na nangu lool hmm. te bis bu ko gars yi jëmee. amuñu moyen bi non seulement pour xeex contre euh, le Niger. parce que guerre nekk loo xam ne da ngay ñëw rek bombarder rek ah. rek dem si yoon non. guerre dafa doon loo xamante ne ni nga koy tàmbalee xamuloo fu fu muy jeexee. Russie Ukraine doy na ci misaal conséquences yi da fu muy jeexee. exactement. Algérie tamit jóg na taxaw nee na moom du nangu guerre yi am ci kaw ci biir réew boo xamante ne dafa dafa bokk moom frontière hmm. donc bu ñu xoolee loolu lépp lool moo lay wan ni li CEDEAO bëgg a def nii en fait amul caaxaan. Hmm. bi Gabon defee ku d'état ba léegi yaa ngi dégg benn communauté naan day dem attaqué Gabon. Hmm, la moo tax France puusul nañ nañ dem attaque nañ dem attaqué Gabon kon gars yi nañu xam ne loolu ay waxu caaxaan la. li xew Niger li ñu koy mën a réglé ni ñu koy mën a saafaree mooy par la voie démocratique. Mm. président bi fi nekkoon liñ koy reproché ñëpp xam nañ ko kon nag instant bi nii comme béy way na mbuus mm. nañu xool naka la ñuy liggéey ensemble mm. pour mën a indi ay solution yoo xamante ne moom la askan wu Niger soxla mm. mais CEDEAO moom moom instant bi nii moom moom it war na xoolaat boppam buñ bu ñu waree def ay réforme ci réew yi mm-hmm. war nañ jiital aussi ay réforme mu CEDEAO parce que ni muy doxee nii moom vraiment mm. nekkul loo xamante dafa gënal askan bi mm. nga xamante ne moom moo nekk ci biir communauté bi te njëriñam taxu koo bëri noonu jërëjëf Alhassane Niang amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey euh, fàttali ni expert nga ci wàllu gouvernance publique ak réforme institutionnelle yaay aussi président parti jiital Wareef ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf euh, soxna Fatou ñu ngi lay gërëm bu baax ci invitation bi euh, donc di euh, la ñaanal suñu borom ci liggéey bi ngay def. vraiment ñu koy rafetlu bu baax a baax di kontaan bu baax nekk sa invité tey jërëjëf.